mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne yéen chiffre mooy lumière laata ñuy compter dañuy sàkku ci yéen ngeen abonné ngeen commentaire ngeen partage ay lien ci loolu ngeen ñu mën a dooleel ba ñu atteindre li nga xam ne mooy suñu objectif tey nag dañuy ñëw ci ki nga xam ne mooy Ahmed Ndoye bi nga xam ne dañ ko arrêté. buñ jógee ci Ahmed Ndoye dañ wax ci ñi nga xam ni ñi waa sàmm sa kàddu euh, dal wax ci ki nga xam ne mooy seen télévision bi muy Barthélémy Dias ak ñi ne ci coalition bi yëpp buñ jógee ci ku boobalee coalition dañ wax ci Pastef bi nga xam ni instant yi ñooy régime bi Ousmane Sonko nekk ca tête ba war a campagne ñu bëgg jël li nga xam ne mooy ensemble bi léegi bii ñëw ci ki nga xam ne muy Ahmed Ndoye bi nga xam ne dañ koo arrêté information yi nga xam ne am nañ ko moom Ahmed Ndoye dafa fiir benn xale léegi nag bi ko bay say gis ne amul li nga xam ne mooy permi ak li nga xam ne mooy carte grise mu nekk loo xam ne nag lu doy waar la ndax Sénégal nag dañoo mën a

lan la ci yoon wax ndax am nañ droit garder ko ba pare nga doog a génn ma ne carte droit ndax am réew bu fekkee ne nit ku mu àndul rek ci wàllu politique bu dara xewee daf koy jéem a critiquer nañoo xam ne loolu lu danger la te lu mën a yàq lu bare bare ci démocratie réew la ndax Ahmed Ndoye ku ne gis ne dafay dal bu baax a baax ci sëñ bi bi nekk di wax li mu gis ak ni nga xamante ne bii noonu la ko gëmee ñu nangu ko ko nag ndax dama jàppale ne Sénégal yi ñuy siise ñu ne ci opposition bi wala ñu daan nguur gi bu ñu waxee nguur gi gën defaan seen bopp ak seen argument moom tege ci xam-xam ku nekk nag ka lay gëm-gëm la léegi nga def na nga war a def bu ko defee nag fekk cinq ans nguur gi bay jeexal maa def bilan boo xam ne bilan bu extraordinaire la mais nag Ousmane Sonko yow ñu ngi ànd def très attention guddi yi réew mi nekk bugguma ko malgré fifi ma def liggéeyam mais na fifi bi tey bu baax ci ni muy doxale ndax am na ñoo xam ne bugg ñoo gis lenn lu dul nguur gi moom Macky Sall gi fi jógoon ñooy am ku wax ñu tëj ku wax ñu jàpp te xam nañu ñaar yooyu bokkuñu waaye dañ defee pour bëgg a influence ñi nga dañuy ànd ak ñi nga xam ne xamuñu lan mooy réew xamuñu luy constitution xamuñu luy loi xamuñu luy droit ndax ñaar moo yàq Sénégal mooy ki xamul te ak ki xam tey wax na mu ko neexee ñaar ñii su ma neexee sax mën nañoo yàq àdduna léegi nag li war moo ñu fexe ba nga xam ne lépp luy loo wax mu nekkul lu ñu génnee mu nekk leer. mu am télé bu mel ne RTS ak yeneen médias ay Walfadjri yi nga xam ne ndaw ñi dañuy suivre ak yeneen site YouTube yi nguur gi xool na leen di jëlee di waxtaan ak ñoom ñuy invité ñu xam droit di wax ak réew mi savoor yi ñuy dawal lii droit nangu na ko lii droit nanguwu ko ki nekk ci médias yi nekk journaliste lii droit nangu na ko lii droit nanguwu ko ki xam ne politicien la ñu xamante ne lii droit nangu ko lii droit nanguwu ko ba nga xam ne bépp ndaw bu nekk Sénégal dina mën a yeewu ba bu dara xewee rek an ah moo tooñ ndax lii mu def droit nangu ko kon loolu nguur gi yéen ci war def liggéey bu ñu jógee foofu ñëw ci coalition bi nga xam ne mooy Sàmm Sa Kàddu nga xam ne coalition la boo xam ne am nañ fa Khalifa Sall am fa nga xam ne Barthélémy Dias Pape Djibril Fall ak ak Anta Babacar ak ki nga xamante ne bii muy piir bu Serigne Moustapha Sy mu nekk coalition boo xam ne bari na ay leader bari ay cadre mu nekk coalition boo xam ne nag dañ koy xaaj élection yi ndax war na maa def benn miracle boo xam ne kenn xaaru ko ci moom léegi nag pour man liggéey bi door na ñoom ñëpp dañoo wàcc terrain bi dem ci média yi di débat xamal réew mi carrément nguur gi fan la cuunee waaye tamit nag d'accord tamit na nguur gi xëy na yàqu bu réew mi ndax yàggu ko fi d'accord tamit na nguur gi mënagul joxe bilan waaye tamit mënaguñ ko kii tigga ci bilan boor tamit ñu xamal nit ñi carrément nit ñi bu demee ensemble ensemble dafa war am ay député opposant opposant yu bëree bëri te député yooyu nekk opposant lu metti metti des fois bu nguur gi gumee ndax ñooy taxaw assemblée noddu ko yuuxu ko comme Ousmane Sonko ni ko demee Macky Sall 2018 kon yaakaar naa sàmm suñu kàddu loolu yéen la war ndax jàpp nañu ne bu dee PDS bu dee ñi nga xam ne ñooy waa Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñoom ñoo fi jógee ni ñu doon nañ ñoom ñi xam ne ñooy waa Amadou Ba ni ñu doon nañ ñoom te ñooñu même bu ñu bëri ensemble tamit coow xuloo te nekkul lu bees la ñuy di mais dafi nekk dañ ci indiwaat rek pour mën a xool seen foofu mu dundee mais bu dee sàmm suñu kàddu nag ku mel ne Pire ku mel ne euh, euh, euh, Khalifa Sall malgré am na ñu ñuy wax ci moom ku mel tamit Barthélémy malgré am na ñuy ci moom ku mel ne Pape Djibril Anta Babacar ñooñu ëllëg ñoo nekk opposant boo xam ne comme Sénégal ni amee état boo xam ne mosuñu ko am war ñu mën a fexe créer loo xam ne lu yéeme la mooy Sénégal am benn opposant boo xam ne mosu am ci réew mi muy opposant boo xam ne bi président bi yéegee dañuy taxawal seen coalition jëmee ko li nga xam ne mooy élection 2029 buñ fi eggee ñu xool man candidat wala ñaati candidat la mën a am rek élection ya ku dem deuxième tour ñu dem yaakaar naa loolu war a mën a ci sàmm kàddu ñëw ci Pastef bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ne ci bopp ba ñu ngi gouverner rek yor réew mi malgré ñu amuñu lenn ñu ne kii tigee heure bi ki ne ñëw fi yoo ko ba ñëpp dégg ko léegi nag ñoom gën a ñu rek di ki nga xam ne muy dee ci fàll ñoom ci ñaari jàngat yaakaar naa ci moom du mbooloo xaj na xam-xam ba da lañ soxla wala benn bëgg indi ci coalition bi li nga xam ne mooy prestation te yaakaar naa loolu coalition bi amee conscience tranquille ñu war sàmm sa kàddu loolu wul ne mënumaa nekk Ousmane Sonko président Ousmane Sonko bàyyi la xel ñett yi ma leen bëgg wax te ñett yi képp bu dalee nguur nguur naa daal loo xam ne ko daal bi ci njëkk mooy mayaat pouvoir ku ma neex mën naa kaa santal gi nguur gi xeex santal bu ko nit ñi naan ne mu daal loolu na ma yàqalul Macky Sall bu ñetteel mooy nguur goo xam ne li am doo wax da nga koy dëgg maanaam mu daal léegi bu ñetteel ba mooy nguur goo xam ne dafay jël position bi di ko tourné ni mu ko neexee pour mën a liggéey ay adversaire am war pour mën a euh, téye réew mi ni ko neexee te loolu tamit doon na Macky Sall moytu na mu dal leen ndax yéen a Pastef ndaw ñi dañu am seen yaakaar gëm leen 54 pour cent bi leen far premier tour kon élection yi ñu jëm ndax da ngeen amaat da ngeen amaat 54 pour cent wala déet loolu ñu koy xaar incha allah du set mais lu ma tam rek ngeen fexee liggéey ba nga xam ne quatre ans yi bu jeexee wala cinq yi da ngeen ne maa def seen bilan. nga xam ne bu ngeen defee bilan bi su boobaa seen bilan mooy nekk seen campagne nga xam ne bu ngeen neexoon sax ci télé yi ngay dem def ay débat public bala élection yu ñëw ba ñëpp xam ne Pastef def na ci réew mi loo xam ne benn parti mësu kaa def ci réew mi mbokk yi foofu la ñuy jeexale ñu wax ngeen abonné ngeen di commentaire merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax merci